Euh, dañu ci am dañu bëgg dem toog ak ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ñu waxtaan dañ leen di woo ci dal wax naa leen ci suba ne leen euh, euh, maire bi ngay a wax ak parce que ne ko na ak dal leadership dal la du ci ay xëccoo ak xeex la ñuy yore Kaolack Kaolack dafa nekk sujet bu sérieux donc boo bëggee ñëw rek wane sa doole ak sa mbumbaay ne comme ni nga bëgg a gérer sa entreprise du donc sëriñ la ñuy njëkk a ci dal mu ànd ak tey ak dal parce que ci ak dal le mëna waxtané ak administrateur ak administré mi parce que administration dafa rombu maire yow dañ la fal da nga fi dem balen fi donc fexel ba mu bax ñëpp d'accord nañ ne kalok li fi nek depuis Ablaye diak man may emploi fictif ay emploi yo xamné dañ leena jël rek luddul politique mais amuñu benn xam-xam ci lañuy nek bu dé loolu bëgg xex ba par dañ ko wara waxtané bu dé aussi dafa am ay deug deug projet yu mu am ci kawlax yu bari ñu ngi koy dégg mi ngi wax na ñëw ñu ngi ko waxtané ñun dañ jàpp ne jàmmi gox yi comme nekkuñ ci benn parparloo ak ci benn kujje li ñu war a jëkk a def mooy dem seeti maire bi wax ak moom seeti employé yi wax ak ñoom bu ko defee ñu xool naka lañ mën a utee safara waaye du ñoom rek ñi fi newoon it am na ay njuuma yu ñu fi bàyyi yoo xam ne foog ñu lijjanti ko xam nga suñu marché bii ñun waa ah, ñun waa Médina yi naka lañ mun a ubbee waxtaan ba marché bi ñu réglé ko parce que marché bi kenn ñemewu ko laal mais marché bi foog mu tijji xaar yàlla xaar nañ yàlla ba est-ce que yàlla duñu fa jëppi sax far dama yàlla baal ah bàyyi xalil waa marché xar yàlla foofu noonu léegi tey mu nekk marché daral fekkoon na fa tox lu nekk mënul nekk marché espace boobu Médina soxla na ko pour leneen Médina soxla na ko pour leneen waxuñu ay cantine nag mais lu ñu war a waxtaanee la marché bi naka la ñuy def bala la fay la ko téye ñu tijji ko bokk na ci ñu war a waxtaanee te ña ko yoroon ñoo fi nekkoon ci ancienne équipe municipale bi donc waxtaan bi ñu war a waxtaan ñun loolu mooy suñu apport ci Kaolack ñëwu ñëw lenaa Kaolack amuñ fi adversaire politique ay potentiel partenaire lañ fi am parce que projet bi ëpp na Kaolack ëpp na Euh, ëpp na Sénégal mais waa Kaolack ñoo ko war a ŋànk donc li ñu fi gis mooy ay suñuy mbokk Kaolack waa yoo xam ne war nañu ànd ñu liggéey incha allah ñu ubbil seen bunt yi dana ñëw ñu seet si leen ñu waxtaan pour gën a ñoŋal Kaolack